léegi man moom laa kon fa xam foofu la laa bëgg wax ne euh, man euh, euh, pour man honnêtement Mamata Gueye warloo am jotu nekk ci si si si si Facebook waaw ah, non ah, xaaral rek parce que waroon nekk man man ni nga mën am réactivité kële bind nga nga dugg nga duggaat foofu tontu naan ko waa les répété al nangam après xool loolu ñu génn waaye xale ba la buñ la taggee tag mooy identifié waaw après da ngay am alerte waaw immédiatement da ngay jot notification. xam nga foog nga dem xam waaw mais mu laa dama ne d'accord je comprends. d'ailleurs sax maa ngi bëgg a tëj sama compte. waaw waaw je préfère nga tëj ko nag. waaw je préfère nga tëj parce que a waaw non man fi li nga wax ni nag neex na parce que pour moi honnêtement dëgg-dëgg Mamata Gueye sa kanam laa yaroo. maa ngi laa suivre sa conseil waaw ñuy jooy ba tey xam nga ni ñu meloon ak moom. Ah, te kon donc kilifa nga. waaw loolu kenn kenn naataable te pour man euh, am na taxawaay boo xam ne euh, kilifa waru a am man man mii nga xam ne gën la féete <laughs> ndaw fuuf ba dëgg yàlla je n'ai pas le temps naan maa ngi xool ay Facebook jàmbur ak ay commande même chaque jour ma jot ay affaire ay yow kay <laughs> mais da nekk bi di tontu parce que tontu woon tamit xam nga aussi euh, moo tax des fois damay dégg gars yi da la naan naan non Mamata ay affaire sexuelle rek lay lay xool moom lay wax neexu ba neexu tamit mooy boo fi nekkee dem lu lu nga njëkk ni nga tontu alors loolu man ma bëgg la comme bizarre dafa am benn rappeur léegi on est amis parce que dañu njëkk a mbëkkante waaw moom li nga la wax waaye paa bi xanaa après gis naa mujj waaye ko eh, gis naa bi ñu créé Jamra gis naa ba Abdou Latif Gueye am la première victoire internationale <laughs> gis naa Abdou Diouf moom la ñu jël à témoin moo ñu boole avec son ministre de la santé Macky Sall Mboup ñun ñoo ànd mener ensemble un combat aux Nations Unies déposer une résolution

ba léegi dans le monde entier te loxo Sénégal a ngi ci. d'accord euh, chaque benn ci vingt-sept degré juillet mu ngi ma daal wax rapport bi ne ko boo foo ne woon. ma ne ko foo ne woon di ma Abdou Mbaye woowee ne ma am na livre mu fi dugg di yàq dëkk bi mm. ñun ñu xeex ko. ba Macky la wax premier ministre ne ko jokkool ak Makhtar am na lu mu wax. ça peut être source à. lool nga euh, yooyu ay sexe la. yooyu. Euh, fii may wax ak yow Makhtar Cissé. le ministre de du pétrole avant muy jógee Sénélec. Mm. mu recevoir ñu ginnaaw bi ko liggéeykat yi sàkkoo ci ñun 700 travailleurs yi ñu daxoon par erreur. non dinaa ñëw si yooyu. non non non euh, affaire compteur yi dina dinaa ñëw jël na ci 493 de. xam nga a. yooyu yëpp bu ko presse bi wax dañu naan nii rek. non non eh, dinaa ñëw waaye bu presse bi ne rangu rek ñu ne waa. waaw mais wax la xam nga xam nga li ma li ma jàpp mooy Euh, euh, sànq tontu nga tontu bu a neex wax ne foofu dama fay def point jàll ca leneen nee nga di tëj sa page Facebook mais bëgg naa tamit di nga tëjaal tamit <laughs> euh, ah, ne fang ci télé bi ak ak yaramu nee na boo nga xaw xool ko ci Facebook may ma may ma il faut nga may ma xam nga nag gis naa nga jàkkaarloog ak ay ay ay ay ay journaliste yu <laughs> waaye ñooñu maay seen bàjjen moo tax euh, may ma rek ma ñëw yow de moo toogee yow damay régler waaw ah, waaw waaw ndax man ak yow danoo am avant am ay yoon <laughs> waaw donc ma Euh, ay filtres man li mu lu ma nekk nekk c'est volontaire man j'ai pas envie de comprendre comment marchent les réseaux sociaux parce que xam naa sama bopp. la moo tax nit nag da ngay xam sa bopp mais je veux dire ni nga waxee ne da tëj loolu lu bien la ndax war dëgg dëgg dëgg maam ma nga tal leneen lu nekk ci Facebook bi euh, euh, di xool ku ku summee tontoo ku gaaruwaal ak dugg fa du tont tal nga leneen. ay tal nga yeneen. Ah, beneen mooy damaa bëgg waaw mais waaw bëgg. Hmm. Euh, Mamata Gueye hmm. ni nga bàyyee Facebook ak réseau yaa ma ko fii dama bëgg itam sa bët yi nekk bu doon ay. waaw d'accord doon ay bëtu garab nii. may ma ma ñëw ànd naa ci ma ñëw doo ma coupé doon ay bëtu garab nii. bët gar bi mooy man su may dox ci tali bi sax su ma gisee kenn ku sol euh, yére bu xaw a doy waar mu tourné sama bët nànk détourné xool fee <laughs> mais yow da ngay ñëw taxaw. xool xale bee xool affaire am yi ba mun kii nga ne xaaral ma ñëw <laughs> eh, tontu ko loolu mais <laughs> loolu tamit c'est quelque chose ba pare eh, eh, foofu nay may ma rek nga ne ma bàyyi nga loolu. Ah, waaw yoon nga bëgg a waaw ñu dox si leneen li des mooy est ce que yooyu tamit wax naa sàng buzz bi est ce que tamit maama taa profité que temps yi buzz bu rëy bi nga am ñii dafa dafa ëpp ah dafa ëpp gars yi lépp yow si ñi nga ko jàllale scénariste bee ci borom théâtre bële ak euh, kii sama sama sama sama sama sama euh, chanteur préféré ba Waly euh, Waly Seck mooy sama chanteur préféré ak kële kii ñeneen ñi ñëw ñoo ñëpp nga nga profité aussi dugg si daf sa plainte woote conférence de presse daal ne 54 organisation ànd na ceeg man bës nga ci am est-ce que profité ci jaaro ci xale yi ku am bës xam naa la ah. mën naa tontu. tontu. <laughs> pour nga bëri si xel si gis nga en réalité. Hmm. ki nga mujjee tudd scénariste bi. waaw mars 2019 laa gëj a déggante ak moom moo ma tooñ. Hmm. du ko fekki. mais dalaa mere. moo bind dal sama kaw. dalaa na ma mere déet. Ah. xam nga dama bëgg a sa wax ji nga wax naan. man man nga am ginnaaw di jël. bref nañ gàttal quoi. waaw. Euh, léegi dinaa dégg say conseil waaw nga bàyyi am naa yaakaar ne waa Jamra dinañ ci am. voilà mais ba ba tey Jamra mais pourquoi man du ma euh, euh, euh, ma dégg tam keneen ku du yow rek Mame Matar Gueye dong la ñuy dégg kenn boobu est-ce que na làmmiñ boobu wala ba nga am songatu loolu. yooyu presse en ligne bi naan picc xaw ma lan. Hmm. moo fa waxoon ne su waali dindiwul plainte bi gàllu ci loosu imam bële. non parce que boobu dafa defaan loolu. waaw ki benn wax donc waaw mais mais yow mais mais ci mais ci. voilà yi si des na li tax may wax. waaw yàlla dafa dogal euh, sa nijaay euh, rahmatulah aleyhi Abdou Latif Guèye mu fii laata jógee et ça continue toujours daf ma dénkoon la fonction. de vice-président chargé de la communication. Mm-hmm. par conséquent. mais nekkatoo ko man maay encaissé yëpp quoi. moo tax d'accord léegi ba ci des mooy euh, ci ci des fois man personnellement damay seetaan ay yenn téléfilm. ci biir réew mi euh, ñuy ñu ñu ciy wax ay kàddu yu doy waar euh, di nga dégg ñuy saaga ñu banaliser saa foofu du foofu yow du ma la fa dégg nga wax yenn saaga yi may dégg man ci téléfilm yi. j'ai xaaral damay dégg ay téléfilm yu fay saaga euh, kii tamit kii film brésilien les telenovelas yooyu nga fay gis ñu def ñu xaw a doy waar yooyu tamit du la ci dégg nga wax léegi man li ma bëgg a xam mooy est-ce que ñi ñoo ëpp buzz xale yi. Euh, moo tax nga ni si ñii ngay dugg waaye ñee di saaga nday fee banaliser saaga yooyu doo ci wax yow pour lan. maa ngi jël sama doomu ndey à témoin buggoon ngay daan yi. Mm. jàppante nañu moom ci lii nga wax. Mm. dafa amoon benn euh, production audiovisuelle ñu di wax kawteef. Mm. kawteef du série du téléfilm. téléréalité la. ñu ngi ko inspiré de la télé-réalité française bi ñuy wax ça va se savoir. te daan daw euh, sur la chaîne privée française mm. RTL 9 mm. autant ça va se savoir boobu Euh, le scénario était connu d'avance. Mm. ay Paris match ay le Parisien libéré parents d'élèves yi di ko lire daane ah lii day war na a daw ci télé yi ndax xale yi jëlee ci ay jàngat ak ay leçons autant kawteef bu Sen TV le scénario relevé à 90 pour cent de l'improvisation et là je prends l'artiste Pape Faye qui était le micro central à témoin da daan toog en plein tournage à sa grande surprise ay actrice di daggay saaga ndey mhm. teew yaa ngi toog sa saal yaag sa doom di ko kii nee nga waxuñu ñu daal def alliance mhm. avec le comité de défense des valeurs morales mais ni bi amee yéen ñi amee bruit yooyu amu ko bruit noonu on a fait pire que ça mhm. ñu daal euh, lëkkaloo ak euh, sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou euh, mu yabal oustaz Adombu ñu daal boole benn plainte déposé ko CNRA jox ñu dëgg daal di arrêté série bi. d' accord léegi léegi euh, ba ci des mooy pourquoi ma du ma dégg ci euh, xale taalibe yi nga xam ne euh, seen. maltraitance waaw dañ leen di dóor jeng leen def si doy waar ki démb yaa ngi dégg la xew Kaolack Louga ak ñoom seen te yooyu tamit du ci dégg te yéen ONG islamique ngeen yooyu pourquoi doo ci dégg doo ci wax. damay jël à témoin le l' très proche de rahmatullahi alayhi sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacké hmm. ñu di ko wax Mbaye Diouf hmm. ñaanoon nañu audience sëñ Baara hmm. jaar mu jaar ci moom il est vivant moom assistant bi mu may dégg Imam Samba mu jiite délégation li taxoon ñu dem Touba dafa amoon scandale bu rëy bu am ci benn. ma tàggee temps baa ngi dem yi ma la wax nii yi c'est actuel la. waaw alors pour affaire xale yi affaire xale yi. Ah. ñun nous avons la première organisation. def organiser une caravane dans la banlieue pour dénoncer les meurtres les enlèvements et les crimes. mais yu récent yi waxtu. voilà kooku c'est actuel bii am nag loo ci wax. alors bii am sa sa ba nekk 2S. waaw mon ami Tunkara posé na la même question. ma ne ko balaa may jox peut-être pour ne pas être méchant. carton orange am na wala rouge rek am. ci football. Hmm. ban moo gën a woyof avant rouge. <laughs> Euh, euh, du jaune. jaune. ma ne ko d' abord damay jox presse bi carton jaune. mu ne ma lu ñu def. ma ne ko parce que il est inacceptable bu euh, Ocritis jàppee un réseau de narcotrafiquants jaay ko hmm. drogue. ngeen wane kan seen ngeen nëbb seen kanam masqué ko. te bu ñu ne am na sëriñu daara bu am problème ngeen ne fang kanam xalu si man man man man man yaa ngi di version man ànduma. yaa ngi di version d'aucune manière te wax naa ko fukki yoon ak juróom-ñaar. yaa ngi di ñuy toroxal. xale waxuma loolu yaa ngi diversion dama la ne hmm. man waxuma la bu ma wax tungara loolu yooyu bërki démb man yu laa la wax dama la ne euh, bërki démb rek hmm. Kaolack bee hmm. gis nga euh, maître coranique bi nga xam ne dafa jàpp euh, mooy ki ñu door ba mu dee waaw la gis nga procès ubbiku ne actuellement ci yeneen taal bi nga xam ne ñii dañ leen jeng ñu dóor leen noonu te yow yooyu c'est en cours là te yow doo ci waxoo ci yaa taloo dara ak scénariste bee xale bay a yaram kon nag da nga tardé da nga tardé sur le sur l'actualité non bi waxoo parce que say naataango réew mi FM laaj nañ ma ci déedéet waxuma loolu dama ne naa la yónnee cassette da nga tardé non non non waxuma loolu xam nga nous avons condamné